parce que moom gouvernance su assassin lañu diggante bi mu toogee léegi suñuy dajale les crimes politiques rek war gëm naa ni war na mat trente ndax li ñu ñun rek ñun suñu parti Pastef ñu ngi ci dix-neuf crimes yoo xam ne makki Sall moo leen assassiné moo leen liquidé

médecin légiste bu jigéen bu ne foofu ñu gaaw ne waa bal rayu ko waye arme blanche mo ko rey ñu dem ci famille yi li ñuy wax dañu bëgg mu valable pour toutes les familles du Sénégal ku ñu reyati jarul ju yakamti nañu jël suñu temps ñu né les familles bu len gaawantu bu len yakamti il faut que ñu def contre expertise ñu né ñu ñuy traîner contre expertise bi mënul am dina am.

léegi nag léegi nag du yem foofu de ki ko rey ak ki ko yónni pour mu rey ko chaîne bi yëpp dinañ leen topp ba fu mu sësee parce que rey ay nit dafa war a jeex ci nguuru Macky Sall dootuñu ko nangu. mbokki Kédougou mbokki Kédougou ma dalal Sénégal Sénégal ma dalal Sénégal.